di yi Info TV dal leen ak jam ci xibaar yi nekk dañ premier président de la république muy bassir Diomaye Diakhar Faye war a amal nak akop déclaration bo xamantene ne nak face à la presse bi nga xam si nag war na amal ci li nga xam si nag moom moo presse bi ci mi nga xam si mom modi président de la république mooy président Bassirou jomay Faye mom nak face à la presse bi nga xam si nag amal tay ci ni bu vingt et une jotee rek la koy amal fa li nga xam si ne moom moo di ca palais de la République mu nekk nag euh, face à la presse boo xam si nag sénégalais yi ci bare bare bare rek ñoo ngi koy xaar bu baax a baax a baax baax nag pour rek mën na suivre ana lan nag lañuy ñuy def. ci déclaration bi nga xam si nag dina ko amal moom mi di premier président de la république muy euh, Bassirou Diomaye Diakhar fay loolu nag sénégalais yëpp rek ñoo toog rek di ko xaar bu baax ci li nga xamante ne si ne nag euh, moom moo di déclaration bu euh, ki nga xam si nag moom moo di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye bu nekk nag loo xamante ne si ne nag sénégalais yi. ñëpp rek ñoo ngi toog di ko xaar bu baax a baax a baax a baax a baax di leen jaajëf bu baax te di leen wax ñu way di abonné